salaamaaleykum mbooloo mi ñi ngi gërëm képp koo xam ne ñëw nga fi tey ci occasion bii ñu am pour mettre sur pied les commission d'une instance du Benno Bokk Yaakaar des femmes du département de Thiès dimanche ba lee lañ ko tegoon à l'unanimité parti allié yëpp a nga fa woon y avait parti socialiste y avait l'AFP, l'ALD, AJ, euh, Démocratie libérale, PIT, MSU et tous les autres partis alliés ak mouvement de soutien yi ñu àndaloon gëm sa bopp a nga fa woon alors dimanche boobu yàlla dogal na douze communes yi nekk ci département bi amul kenn ku ko wuute réseau des enseignants benn frange bi mi ngi fa woon beneen bi doon agité tey nag moo ñëwoon fële di perturbé mais ñu bëgg leen xamal rek ni politique ak loolu moo ànd kenn mënta am unanimité même le président Macky Sall mi ñu fale à 65 pour cent amul woon unanimité ñu sante ko yàlla ndax keroog liggéey nañu liggéey bu am solo liggéey bu ànd ak tekk ak teey ñu def ko dans l'unité ñuy saluer nos alliés parce que keroog presque liggéey ba yépp ñoom ñoo ko defar ba mu jekk li ci desoon rek mooy eggale bi nga xam ne moom la ñu war a eggale tey te keroog ba ñuy teg dañu tegoon sëy na bu Ndiéguène mu nekk présidente Benno Bokk Yaakaar du département de Thiès il faut que mu clair xeex bi amul njariñ xuloo bi amul njariñ ki ñu war a xeexal mi ngi ci dëkk bi di ko lëmbe dégg ngeen bërki démb bi Macky Sall gracier Karim Wade lu ne wax na ko dil bi dil bi dil bi loolu moo waroon a nekk ñun su sunu réunion ñu préparé ko pour tontonteeg moom te xam ni nag gaynde bu daanoo ci àll gaañu fa day gën a soxor te looloo ko dal kon ñun li ñu war mooy ñu àndandoo dans l'unité liggéey gunge Macky Sall pour que les échéances à venir muy élection législative yi di élection deux mille dix neuf yi présidentielles yi mu gañe ko woo la mai ñu di leen ñaan di ñaan suñu responsable yu góor ñi ñu accompagner jigéen ñi gën leen a dooleel defuñu lii saa ñëw ci ñoom parce que dañ leen a xeeb wala dañ leen a yàpp mais soo formé nit ànd ak moom gunge ko. jox ko allo mu jàng ba war a tari war nga koo mën a bàyyi mu ber boppam tari tari ba ñu xool li nga ko jàngaloon fu mu ko toll loolu moo tax tey jigéen ñi beru woon dem ni war nañoo am maturité liggéey bennoo bi ànd ko defar ko ba mu jekk ñu dem nag ci loxo responsable bi nga xam ne mooy responsable départemental bi di docteur Augustin Tine ñu teg ko ci loxoom ñu teg ko ci loxoom xamal ko ne jigéen ñi lii lañu liggéey te ca loola ca la ñu nekk ba tey te lenn duñu ci dindi defe naa ne jigéen ñi loolu d'accord ngeen ceeg man d'accord ngeen ko sëy bu njegeen mooy piloté la bennoo d'accord ceeg man d'accord ngeen ak man ka allié yi ñoo ñuy gunge ànd ak ñun ci bennoo bi kon wasalaam loolu laa amoon ci lu may wax kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di rafetlu jataay bi nga xamante ne moo ñu fi andi tey euh, parce que ni ko ay dara waxee léegi euh, ñun ay alliés lañu man mi taxaw di wax ak yéen boo bu ma gisee ni ma solo war a xam ne parti socialiste laa bokk donc ñun ay alliés lañu te li nga xamante ne moo nekk ci kaw suñuy responsable di ko doxal moom la ñuy wàcce ci suuf. di ko doxal ak responsable yi ak partie yi ñu àndal. Euh, damay dëggal li fa am a wax léegi parce que dañu nekkoon en réunion fële Thiès euh, euh, fan yële passé ñu tase fay amul benn problème gaa am réunion mënul ñàkk problème parce que kenn ku nekk dinga wax sa xalaat mais bi ñu discuter ba pare parce que débat d'idée moo fa amoon bi ñu paree kenn ku ci nekk tiire nañu ne effectivement madame bu Njigéen mooy piloté mooy piloté ba présidence benn Bokk Yaakaar bi loolu aussi ñun ñëpp ñu rafetlu woon ko fa donc tey su fekkente ne dañuy ñëw ba fii mu am benn couac ñun les partis alliés couac boobu lié wuñu ñun li ñu lié mooy ñu continuer la ñu commencé woon donc li nga xamante ne moo xew tey ñun teniruñ ci compte dugguñu ci parce que c'est un problème boo xamante ne waa APR bu ñu paree dinañ ko réglé seen bopp ci seen biir ñun en tant que allié amuñu pour ingérer wu ci dig ci biir parti bi nga xamante nii ñun moom lañu ñu àndal di liggéey suñu paree ñoom dinañ réglé seen problème ñun li ñu fi andi tey mooy ñu continuer bureau ba ñu doon def keroog ñu war a taxawal les commissions eggale euh, ko ci jàmm ak salaam kenn ku ci nekk xam ban rôle ngay jouer ñu àndaat ci bennoo bi pour élection yeneen yuy ñëw ñu jéem ko gagné au nom du Yaakaar loolu laa amoon ci may wax ngeen baal ma wasalaam di dëggalit li nga xamante ne moo fi jote jib defe naa ne jarul baril ñun ni ñuy doxee rek mooy logique pour logique danoo nekk ci coalition sunu ay leader fàtte seen bokk jiital Macky Sall te duñ ko fakastal ba mukk ñu it logique pour logique ak lu ñu mën a mën a am martaba waral ja ñu teg ko ci suuf rek jiital waa APR te ba ñu àndee taw ñun ñëpp dañoo ne seen bu njëgan la ñuy jiital nag li nu indi woon mooy teg commission yi kon eggale liggéey moo ñu indi woon tey su yàlla dogalee li mu dogal nag ñun dañu koy nangu waaye comme bés bu nekk ñu am beneen tëbin boobu tëbin moo waral lii ñu ne kon nañu daje jéem a xool ndax fi mu nekk wax dafa jeex li nu ñor ñun mooy li nga xam ne yàlla jox nañu ko muy réew mi te ñu am ci ambition ñu àndandoo ki nga xam ne moom mooy président de la république gunge ko ci loolu rawatina nag PSE bi nga xamante da koo ñor lool kon loolu yaakaar naa du ci xeex lañ koy réglé du ci xuloo lañ koy réglé du ci mois la lañ koy réglé déedéet nañu fàtte suñu bopp te xam ne Sénégal moo ñu ñor ñu àndandoo nekk benn liggéey liggéey bi teg ko ci loxo yi mag sàll àndandoog moom bu bu 2019 mu dellu fa mu nekkoon rek loolu mooy li nga xamante ne mooy li nu fi indi tey di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñun allié yi daal li nu gëm mooy ba nu àndee amul di liggéey li amul benn jafe-jafe amul benn problème ñun ñoo tënki loolu ñoo ci ànd ndax ñun dépassé nañ fu ñuy naxeeti dépassé nañu fu ñuy wax fii ngay xool ndax defe naa ne nag macha allah macha allah lépp lu nu war a def def nañ ko fu nu war a dem dem nañ fa fu nu war a egg egg nañ fa Macky Sall mi président de la république maa ngi moom a nekkoon assemblée nationale. keroog ba ñuy koy xeex maa ngi toog kon defe naa ni gisatuma ci àddina lu nuy naxe dara luy nuroog nax wala luy nuroog leneen newu ci ñun daal dañu ànd pour àndandoo ànd gor moo ñu fi indi tey ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf si beaucoup. parce que jigéen ñi ñëpp wax nañu presque département bi wax nañu Benno Bokk Yaakaar parti allié yi ñoom ñëpp wax nañu di leen wax ni mbir mi warul woon a am coow. suñu camarade Seynabou la mu war a def def na ko man tey dama jaaxle bi ma gisee ñu naan Seynabou am na ñu mu woo à huis woo ñi bàyyi ñii loolu amul Seynabou bi mu sumbee liggéey bi ñun femme leader responsable ku nekk woon na la ne la damay waxtaan ak yow ngeen dem ci base bi waxtaan ak ñi ci des parce que gis nañ ni Benno Bokk Yaakaar dañoo war a ànd nekk benn. bokk ndey bokk baay pour président Macky Sall nag mën ñoo jàppale parce que ñëpp xam nañ ni Thiès suñu xaajaloo bi daf ñuy euh, daf ñu yàqal lu bari bari idée bu noble boobu nag sëy na bu génne ko ñun ñëpp nag ñu ñëw ànd ci ak moom parce que ñun ñëpp ay responsable lañu lii tata bu soo wax léegi bu LD nee na ku ci nekk da ngaa war a fàtte sa bopp ñu dem autour de l'essentiel. te ñun ñëpp nag dañoo war a jiital bu mii ñu jiital ko dañ ko war a jiital jiitaluñ ko dañ ko war a jiital pourquoi c'est la seule femme APR boo xam ni Macky Sall jox na ko ndombal tànk fii femmes yi ñi ngi agité wu ñi ngi liggéey ñi ngi sonn amul kenn ku fi am ndombal tànk c'est la fem boo xam ni moom moo bokk directoire nit ki tam da koy nangul la mu mën ak fa mu mën a egg Seynabou la mu la mu mën fële ñun ñii mënuñu ko la mu fa xam ñun xamuñu ko parce que ñun ñu ngi fii ci baas bi di liggéey te gëm naa ni su ñu ko jàppalee mu nekk suñu tax nit ku baax la suñ ko jàppalee mu dem ñun ñëpp nag dina ko delloosuwaat ci ñun loolu laa am damay wax ñi nekk fële nag di wax c'est un non événement man dama leen di woo ñu yow bokk ñun ñëpp ñu ànd liggéey bokk ndey bokk baay ndax ñu mën ñoo faale wasalaam